ci géej géej la Bamba tigee dambi xam-xam ba faf pour alli way xalim ak boroomam ba ak ba ak yàlla ak bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala asrafil anbiyaa wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qadimihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh daal ñu ngi leen di wax leen ziar di jiital ko ci jotaay yi nga xam ne daay mu xaddamatul xidma baaxoon na di ko def xam ne ko digle wax saa yu wér sa borom bëggee rek am na liggéey bu am solo ñu ko xam ne baaxoon na ko di def tàmbalee ko ci nga xam ne laaj na ngir gan ñi ak ñi nga xam ne a def seen bëgg-bëgg li nga xam ne moom la gën a yem danañ ko teeroo tamit ci xeeti ndaje yu mel ni nga xam ne benn bu tey bi benn na ci yooyu muy ay waxtaan ak ay fàttalante yoo xam ne day jëm ci bis bi jëm ci yoon bi jëm ci diine ji loo xam ne dana nekk ab yóbbal ci koo xam ne bëgg naa waaye dana nekk ak fàttali ak ab soññoon yi nga xam ne tamit ñu ngi dox jataay yëpp jataay day bi benn la ci yooyu ñu ko di ci ànd ak comité d'organisation bi nga xam ne ñooy saytu màggal bi ci jiitul Cheikh Mahamadou Bassirou Bakar Abdou Khadre waxoon nañu ak jot ñu ànd benn ci waxtaan yi ñu lëkkaloo ngir liggéey bi gën a yàgg te xam ne tool bi benn la yëngu ñu ngi xam ne daayira bi koy taxawee ci màggat bi di ko taxawee ci dëkk bi ñoom tamit taxawaay benn lañ ci am ba tax na kon jotaay tey bi ñu am ak ñoom xam naa danañ fi teew rek ci kan kàddu yi nga xam ne ñoom dañuy tëjee dana ci gën a leer euh, jotaay tey bi nag ñu ngi ci war a ànd ak sëriñ Ahmadou Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada moom sëriñ Cheikh Fatou Ba moom borom Darou Mouhty nga xam ne yaakaar na doonatul ku ñuy xamle ci koo xam ne mi ngi topp yëngatu yi nga xam ne mi ngi am ci yoon bi ay xeeti waxtaan ak bi ci njàngaleem ak ci kàddoom koo xam ne wax dëgg yàlla bu jotal la macha allah moom la ànd mu jotaay kon tey muy waxtaan ci tomb boo xam ne bu yitteel ba am solo la ndax euh, bu ñu wax dunduk murit daa bokk ci yi nga xam ne yuy suuxat ak ruwaam yuy dëgëral pas-pasam la ci digganteem ak sëriñ bi yoo xam ne yuy tax la ab doxam jëm ci boroom nekk loo xam ne doxin bu seet lay doon doxin woo xam ne dana egg fa nga xam ne bëgg loolu nag yu bari ñu ko wàññi waaye dañuy am benn boo xam ne nag bokk ci gën a gaaw gën caa am muy jàng saa yi muy bind sëriñ bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam xasaay yooyu moom la sëriñ Ahmadu Mbàkke war waxtaan ci ban solo ban njëriñ la am ci dundu murit bi nga xam ne bëgg naa nekk ci borom soo mën a ci yoon yàlla daal di ko sëriñ njàng ñu ko njàng xasaay ak yi teew ñu koy teew xam ne borom foofu ban njëriñ la ko la ko mën a jural ban ban jeexee mën a def ci ab doxam jëm ci borom danañu jël loxo yu wuute waaye ci dëkk rek danañ xam bu ko xeex saa yi dana ci dugg dëgg ndax sëriñ bi dafa bind lu bare bare lu wuute loo xam ne mesure su ko gis bindul ko lool ci jamono li bind nag li muy yaatu yaat bu ñu waxee saa yi am na ci loo xam ne ci gën a dëgg suñu amoon dana ci ñëw bu baax a baax danañu xamante ne yenn ci jagle yoo xam ne xaside yi am na xaside yenn jagle yoo xam ne am na ko ba tax mu mat a yitte woo ba tax mu mat a soppi dana ñëw tamit ci naka la ñu mën a jariñoo ci xaside yi ndax xaside yi euh, li muy yaatu la ak li muy li muy fees def la jariñ ak bàtt def dafa am yoon boo ne mën na sëriñ bëggee ñu jaaree ko wala mën boo xam ne bëgg na ñu koy jëfandikoo jaaree ko ndigal bi nga xam ne moom sëriñ joxe mag ñi nga ne ba ni mu accès yar teggin ak yëpp ñu daan ngir mën a jëriñu xasida yi loolu tamit sëriñ Ahmad dal ci xam lu am solo la xasida yi ñun ñëpp jublu nañ ne gis na ne lu ñëpp jublu la lu ñëpp bëgg la lu ñëpp yittewoo waaye mbir mu nekk la xam daf ko war a leeral ak ak ak mooy tax ba jëf ja mën a am mën a am fay mën a am tamit jëfandikoo ci leeraay yooyu xam nga lan mooy naka lañ ko mën a jëriñoo ak yenn ci wax yoo xam ne ak ngëneel yoo xam ne sëriñ bi nekk digg ko tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jëfandikoo di ko jàng ak nga xam ñoom la ñoom ñoo koy teewoo waxtu bu nekk kon ngir bañ a mën a rek dañuy dalal sa kàddu di ñaan rek commencé te ñaan suñu borom lépp loo xam ne rek daanaka daanaka daanaka ko ci njëriñ ñu mën koo jëriñoo.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 di ndokkeel bu baax itam ñi nga xam ne ñooy liggéeyal bërëb bi te am tawféexi nekk fi di liggéeyal bërëb bi di liggéeyal sëriñ bi fii ci bërëb bi muy muqaddamatul xidma di ñaan yàlla nangu liggéey bi te def leen ci ngën ci tawféex ngir njëkkanteeg waxtu wi li ñu war a waxtaane mooy ahamiyatu qiraati alqasaidi fi xayaati almuridi solo si jàng xasida am ci dundub murit bi loolu waxtaan wu yaatu la li nu ci waajalit bari na lool dana njëkk a ñëw ci jéem a xamle xasida buñ ko waxee ci ak murit mooy lan ginnaaw ba danañ dugg ci solo si ci boppam solo si am ci dundub murit bi ci yan anam la mën a feeñee ginnaaw ba dana ñëw ci ay masala yoo xam ni laale na ak jàng xasida ginnaaw ba nag mu ñëw ci naka la ñuy jariñoo ci xasida yi bu ko waxtu yu mayee xam nga bi du ñu taxaw ci ni ko ulama euh, borom xam-xami arud yi di jàngalee dañuy wax rek ne murid di ñoom bu waxee xasida mooy lépp lu sëñ bi bind rek léeg-léeg weser yi sax dañ koy tudde xasida kon ci murit walla ci al urful murid yi bu ñu waxee xasida lépp lu sëñ bi bind rek xasida yooyu yi nga xam ne sëñ bee ko bind nag ñaari xeet la am na ci xeet yoo xam ni am na ci wet goo xam ni wetu xam-xam la nga xam ne la am ci yeneen xeeti xasida yoo xam ne xasida yi tudd yàlla la ku ne xam na ne sëriñ bu mag bi sunu borom da koo jagleel tariqaam di tariqab tudd yàlla bu bari sax ndax sëriñ bi moom la yàlla def muy sàmm tudd yàlla ci kaw suuf li wax ne laa yaxtafi ala kaw ni xaasina dikrillaahi nuuril kawni moo taxoon mu daa wax ne yitteem mooy tabax njëndi lu kawe njënnil tudd yàlla lu kawe kawe kawe lu rëy sharaatu baaniyan binaa ak dikri tabax boobu yi nag dafa tegu ci kaw xam-xam wajaal binaaiya binaa ilmi wa amalin bi sunnatin wa xilmi te mooy li muy tabax dafa sàkku ci sun borom mu defal ko ko lépp tege ci kaw xam ak xam-xam bu ànd ak jëfe te tegu ci kaw sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ak jikko ju rafet moo tax jihaadam jihaadi xam-xam la indi ujahidu bil ulumi wa bit tuqa xeeti xasida yi kon mën nañ ko xaaj ci ñaari xaaj rek xasida yi xam-xam yi ak xasida yi tudd yàlla yi sëñ bi ci moom wax na ne mbindam day jàngale xam-xam day yulli ay xeeti xam-xam yi diine yoo xam ni doomu aadama yi moom lañ woo ngir mën a gindeeku ak mën a jaar ci yoonu njub yebussu ulum addiini xatti mujaddidan li nahji nabi bil xatti id rasmuhu afa ak li mu wax ne kitaabati tubayinu alfuruda wa sunana alladi kafa tamrida wax ne mbindam day leeral faratay sunu borom yi ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunna yi bokk am na feneen fu mu wax ne sunna si yonente bi lay lay leeral li mu wax ne wa xatti yuril garraa dal xussi wa na'i yabuttu fii sunnatihi xattil funuun kama bathastul madha muddata sinin kon bindum sëriñ bi dafa am wet goo xam ne wetu xam-xam la ci yoo xam dafa ñëw ngir taxawal lislaam ak dundal lislaam ak yëkkati lislaam loolu moom la wax ne rajawtum qiyaada alxizbi lillahi waxdahu bi xatti alladi yaxya bihi xayru islaami mbindam lislaam ju wér ju leer ju dëggu moo ci jaare ko loolu yi nag lim ci bind bari na ci gàttal rek bu dee tawxiid xam ngeen ne lislaam ñetti xaaj la iman islaam ak ihsaan tawxiid bind na ci lu bëree baree bëri bokk na ci mawaahibul quddus fi nadmi nathri cheikhina sanusi ak faydul ganiyil mugni ak faydul alimil xabir ak jasbatu sigaar ak fatxul fattaaxil alimil xabir ak jaalibatu saada ak yeneen ak yeneen bu dee ci wàllu fiq mooy yi nga xam ne moom la cër yi jëfe loolu it bind na ci lu bare bare bari aljawharu nafis nahjul xaqiqa wax nañ ne way na muxtasar cheikh xalil saraana risalatu bnu abi zeydin alxayrawaani ak yeneen ak yeneen bu dee tasawuf moom it bind na ci lu bare bare bare bari masaalikul jinaan ak mu layinu sudóor ak mu nawiru sudóor ak magaaliqu niiraan ak yeneen ak yeneen bu dee ci xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa def na ci ab téere boo xam ne mi ngi ko tudde nafaisu durar fi kalimaati xayril bashar dajale ci ñeent fukki xadis ni ko borom xam-xam yi yàgg defee bu dee ci xikam yi ak dénkaane yi moom ku ne xam na ne bari na bari na loolu ci sëñ bi bind te lépp day jàngale diine itam bokk na ci majmua bi Cheikh Abdoulaat mooloon muy majmua bu ndaw bi ak bu mag biñ biñ dajale ci jamono Cheikh Cheikh Saliou Mbacké te dugal ca diwaanu shirkul jawahir am na sax téere yoo xam ne day boole lépp diine lu mel ne tasawudu shubbaan ak tasawudu shiraar am na téere yoo xam ni téere xam-xam luy jëm ci wàllu ak taalibe ak teggini ak murit mel ne nahju qadaayil xaaj siira yonente bi sallallahu alayhi wa tam itam bind na ci ndax wax nañ ne sarxu na barzan ji matnu barzan ji bi nga xam ne moom lañ jàng ci gàmmu bu ci teggin yi sàkkoo xam-xam it bind na ci lu bare bare bare bokk na ca zaadu zawi taallumi li rabbihim wa raaxatul muallimi bu dee ci xam-xamu làkku arab itam bind na ci ci naxwu bi ak sarfu bi sarfu ku ne xam ne ne sarxu na nushatu zarif ak yeneen ak yeneen kon am na ci mbind sëriñ bi loo xam ne mbindi xam-xam la ci xësidee la yoo xam ni des koy jàng ngir mën a xam yoon wi mën a leer ci sa ci sa kanam am na nag yeneen xasida yoo xam ne xasida tudd yàlla la mooy li mu wax ne kitaabati dikrun wa shukrun wa sadaat ak li wax ne xafistu zikrallahi bin nizaami nga xam ne wayam da cee sàmm tudd yàlla nga xam ne xeet tudd yàlla yépp da ko dajale ci biir ci biir mbindam ci biir xasida da nga ci tudd da nga ci fekk istigfaar da fekk salaatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom sa wax na ne raamat qasaidi salaata wasalaam li dil mazaya di jawaabi al day mel ne ay ay xalimaam moom salaatu ala nabi rek moom la bëgg di di di rëdd ak di bind maanaam moom la yittewoo xasida yim def ci salaatu ala nabi bari na mën nañ cee tudd muqaddamatul xidma bu ndaw bi ñu xam fi salaati ala nabi rahma am na beneen muqaddamatul xidma muqaddamatul xidma boo xam ne bu mag la mooy kubra bi ñaar yooyu bu ci ne la ca ne ci salaatu ëpp na juróom benn téeméer bu dee ci nuuru daare ni moom it ci salaatu ala rasulillahi la lu ëpp juróom benn téeméeri salaatu ma nga ca jaalibatul maraaxib moom it ci salaatu al nabi la lu xaw a jege ñeenti téeméeri salaatu mi ngi ci ak mafatixul bisri ak taysirul asir ak durru samin fatxul gafaar fi salaati ala mahil awsar ak bidayatul xidma ak yeneen ak yeneen am na itam ci biir xasida yoo xam ni xasida tudd yàlla ni ma ko waxee salaatu ala nabi waaye am na yoo xam ne ci tag tag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la gën a jëm mel ne muqaddamatul amdaax mawaahibu ak jazbu ak ak jaalibatul maziyaat ak fatxul fattaax ak futuxul mukarrimi ak yeneen ak yeneen raa yaag miimi yaag nuuni yooyu ma kenn xamu nu mu toll ñu ñëw nag ci solos xasida si xasida yi solo si mu am ci dundub murit bi murit bi xasida mënta ñàkk ci dundam wala murit bu dee war na koo xam maanaam xasida mënta ñàkk ci dundub murit bi solo si nag dana feeñ ci mbir yu baree baree bari la ca jiitu mooy ñoo xam ne xasida tudd yàlla la ni mu ko waxee ni ko sëñ bi waxee kitaabati dikrun kon xasida tudd yàlla la te tudd yàlla mboolem doxub murid yëpp mën nañ ne ci tudd yàlla maanaam lay jaar maqaamaati nit yàlla yëpp di tàmbale ci yaqaza ba ci at tawxid lépp zikr moo ne mooy war waay wiñ ci wiñ ci jaaree maarif yeeg axwaal yépp itam cosaanam tudd yàlla la tudd yàlla day lu rëy ndax suñu borom ci boppam dafa wax ne boo koy tudd moom it boo koy fàttaliku moom it dalay fàttaliku fadkuruni adkurkum imaam ahmad nettali na xadis bu euh, wër ci ñeneen nettali ko buxaari nettali ko ak ñeneen ak ñeneen sunu borom tabaraka wa taala wax ci xadisu qudus yu ne yabna aadama in dakartani fi nafsika dakartuka fi nafsi wa in dakartani fi malain dakartuka fi malain min almalaikati aw fi malain xayrin minhum ba xadis ba jeexee niñ ko xamee mooy suñu borom wax na yow foo ma fàttalikoo rek ma fàttaliku la soo ma fàttalikoo yow kese ma fàttaliku la man kese boo ma fàttalikoo ci biir mbooloo mooy ngeen ànd di di jàng de mbooloo ma ma ma ma ànd ak malayka yi di la fàttaliku subhanahu wa taala loolu mënoon nañ ci wax lu bare bare ci solos tudd yàlla boo ko xamee da nga xam solos xasida yi kon xasida ginnaaw tudd yàlla la mboolem lu ñu la wax ci ci ci ci njëriñ yi tudd yàlla ak xéewal yi na ci tudd yàlla rek mi ngi ci tudd yàlla la ci gën a rëy bokk na ca mooy da ngay am maaya xaasa booy booy am ak suñu borom tabaraka wa taala yonent bi wax na ne suñu borom da wax ne ana maa ma maa dakarani wa taxarra wa bi shafatahu li fee yaa ngi tudd rek na xam ne maa ngi ànd ak yow geneen àndin wu bokkut ak ma ànd ak ñëpp ndax moom wa huwa maakum aynama kuntum bokk na ci solos tudd yàlla mooy jege yàlla moo ci gaaw ci ma ci may la ko bokk na ci solos tudd yàlla mooy sunu borom day puukarewu fa kanam malayka yi ñi nga xam ne ñooy ñooy tudd bokk na ci solo si tudd yàlla mooy yonent wax na ne moo gën ci jëf yëpp alaa unabbiukum bi xayri amalikum wa azkaaha inda malikikum wa arfaiha fi darajatikum wa xayrun lakum min infaaqi dahabi wal wariq wa xayrun lakum min an talqaw aduwakum fa tadribu anaaqahum wa yadribu anaaqakum yonent bi daa laaj saxaaba ne leen ndax duma leen tegtal li gën ci jëf yi gën cee sell fa suñu borom gën cee gaaw a yëkkatil nit ki ay daraja gën joxe sa alal ci yoonu yàlla gën sax jihaad mooy jihaad ak yéefar yi saxaaba yépp ne ko loolu de bëgg nañ koo xam mu ne leen dikrullahi taala mooy tudd yàlla subhanahu wa taala kon tudd yàlla lu rëy la lu bari ay njariñ la borom xam-xam yi taalif nañ ci lu baree baree baree bari mooy jaamu yàlla gi nga xam ne lépp lu mu ànd rek jaamu yàlla googee day gën a am daraja mooy jaamu yàlla gi nga xam ne boo koy def suñu borom du delloo sa ñaan tudd yàlla goog yi nag ku ne xam na ne ak riyaay boobu yi Sëñ tubaa danoo defal ay tudd yàlla yoo xam ne mooy xasida yii nga xam ne mboolem xeet tudd yàlla yëpp da ko cee dajale wax na nu itam wax nu itam ne na nekk seenu ñam xayru taami lil muridi saliki dawaa mu dikri dil jalaalil maliki danaa wax ne moom suñu mag bi danaa wax ne tudd yàlla mooy dundug xol mooy dundug ruux waalam bi anna dikra quutul qalbi waaw wax na itam njariñam ci bërëb yu bëree bëri te wute tudd yàlla buru dara lislaam da cee woote jëm ndax mooy ruuxu jaamu yàlla yi maanaam mooy jox jaamu yàlla ak ruux mooy defar xol di sabab leeri suñu borom di wàcc ci xolub jaam bi di sabab itam génn ci yow mboolem jikko yu yi nga xam ne baaxul ak yi nga xam ne ay safaan la dugal ci yow mboolem jikko yu baax yi moo la yóbbu ci itam nga amee jikko yu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw kon moo lay may itam nga àgg ci sa xol leer set ba leeru xam-xam man caa tàbbi moo tax suñu borom digle ko ci alquran ci bër yu bare bari bare wax na itam nay bari udkurullaha dikran kathiran wa dakarullaha kathiran wa dakarallaha kathiran wa dakirina allaha kathiran yonent loolu wax na ci lu bare bari kon loolu genn wet la ci solo xasiida yi mooy ne xasiida day tudd yàlla te tudd yàlla lislaam da koo digle wax ne nay bari ñaareelu wet gi nga xam ne maras na cee xamee solo xasiida yi mooy jëmmi xasiida ba mu nekkee tudd yàlla ba noppi nag daa nekk tudd yàlla gi gën a kawe ci tudd yàlla yi ndax barke bu rëy da cee ne mbindum Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa yàlla ko defal ci mbindam barke bu rëy rëy barke bi mi ngi feeñe ci mbindam mépp da ko tànq ci alquranul karim wax ne wa amdaaxuhu min aayi mawlaahu tuxraju ak lubbi munawwarun bi nuuril wax yi mbindum Sëriñ Tuubaa dafa su bo dafa dafa dafa dafa leer dafa ànd ak leer te set wecc te ñoŋ mucc ci mbooleem lu di lu ku ne xam na ne yeneen xeeti tudd yàlla yeeg xasaayid yi gaa yu njëkk yëpp da daa ànd ak ay larax waaye sëñ bi yàlla da ko defal yooyu yëpp amul ci tu amul ci mbindam xayyabtu andaamiya an na lépp ak lu dul safaan da cee da cee mucc mbindum sëriñ bi itam li lay xamal dayo bi dëgg-dëgg mooy sëñ bi dafa wax ne lépp mbindam mi ngi ko tuxale ca allawxul mahfuz kitaabati min lawxi rabbi tunqalu kitaabati min lawxihi tantaqilu wax na ci lu bare bare bare bare ci njëlbeen léeg-léeg lu mel ne xasida gi mu tëgg fa taqabbalaha rabbuha wax na ca njëlbeen ca ca tarjumaan ja ne baat bi baat yi maa ko wax waaye maanaam bi ci allawxul mahfuz la la jóge loolu mooy mooy lu mel ni wax ne aktubu naaqila min lawhil xafiz maanaa ya mooy maanaam yi ca lawhul maxfuuz la jóge léeg-léeg sax nga gis xasida yoo xam ne wax ne baat yeeg maanaam yëpp ca lawhul maxfuuz la jóge moo tax muy mbindum leer moo xam ni leer bu rëy da li mu wax ne wajaal tawaali fii anwaaran te nuur saatiatan bi xurmati nuuril munir leer gu da ceene ndax li ko wuutale ak yeneen tudd yàlla yi mooy dafa jaar ci xolub sëriñ sëriñ bu mag bi nga xam ne xol bu set la bu leer boo xam ne lépp maanaam leer leer ak suñu borom da cee da cee rot waxtu wu ne li mu wax ne lam taktubil aqlaamu bi midaadi fi gayri faydillaahi jil jilaali wajaal fuyuudi fuyuuda kalkali munu muniira quluba xisbika kon leeru xolam googee nag ca la tànqe eh, génne ci xeet tudd yàlla yu kawe yii ku ne xam na ne tudd yàlla yi fi muy wutee mooy xol yam yam bàyyi ko ak ruux yam bàyyi ko jëmm yam bàyyi ko gaa yu baax yëpp kenn ku ne am nga tudd yàlla yu ñu lay ak xeeti sarawaat waaye ci jëmm yooyee ci lay rawante hum darajaatun li suñu borom wax ne xam nga am na mën a wax la hum darajaat waaye hum darajaatun mooy gaa ñi ay darajaat lañ moo tax leer googu ci ne la moo tax seytaane ci moom ragal ko moom moom mbindum sëñ Tuubaa sëñ bi wax na ne moom xaafal laayinu min kitaabati falaa yaqrubu ni seytaan du ko jege mukk mbindum sëñ Tuubaa bi wax na ne moo raw kënu ci iblis kitaabati tubashiru lmusafaa wa inda iblisa yafuuqu midfaa wala tafuuqu midfaa bokk na ci solos mbindum sëriñ bi ak réyaayam itam akub dayoom mooy mbindum sëriñ bi day bégal rasulullahi sallallahu alayhi wa kitaabati tubashiru musafa ak ida ida katabtu tasaman muxtaaru te itam suñu borom daa nangu lépp mbindam xabila rabbul alamina kalimi loolu wax na ko ci bërëb yu bare bare bare yëmut ci nangu ko nangu ko waaye da ko cee defal lu kawe njortam yaa jaa'ilan xattiya fawqa danni ba tax na wax naa léegi ne lu ñuy lu muy tuxale la ci allahul mahfuz waaye lu mu ci liggéey ba noppit dañ ko yéegalaat mu dem aras moo li wax ne min nii lahu qasaidi wa rufiat lil arshi wal kursiyi wa hiya nafaat léeg-léeg sax mu wax ne du yem aras ndax ku ne xam ne aras mbindeef la ci mbindeef yi waaye dañ ko yéegal mu dem ca sunu borom tabaraka wa taala rafaa dul arshi lahu xatti bila raddin wa innahu xayaati qabila moo tax muy mbind moo xam ni sëriñ bi wax na ne moom la sunu borom gën a sopp ci lu dul alquran ak sunna si yonente bi ak wax yonente bi sallallahu alayhi wa moom la rasulullahi sallallahu alayhi gën a sopp ci lu dul ak wax yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax foofu nag la rawee yeneen xasayit yëpp yu yu bokkul ak moom àgg ci sëriñ bi wax ne mbindam sunu borom da cee bëgg ba di ko puukarewoo fa kanam mursaloon yi ak saxaaba ya ak nit ñu baax yi baha bi xattillahu kulla mursali ala aljamii salawaatul mursali baha bi xattiya fiaala saxbi radiya anhum wa anaara laxbi baha bi xattiya ibaadallahi alsaalixiina allahu muxzi muxzi llaahi muy dem rek ba àgg ci sëñ bi wax ne yowmal qiyaam muñ fa demee ca àjjana foofee des na ko fa sadd di ko daaj te eh, xuur ñu ñoo ñoo koy def foofe kon foofu lañuy ñuy xamee ne jëmmi xasiida solo si ak rëyaay bi ak biisaay bi ak li nga xam ne moom la suñu borom def foofu yi lañ koy xamee muy lu rëy loo xam ne woyof na ci suñ kanam nii waaye mag ñi ci misaal genn xasida yow man naa man na laa yomb lool waaye mag ñi daanañ dox lu sori ngir gis ku ko am ba man faa toog mokkal ko delsi loolu dañ ci nettali lu bare bare bare loolu nag moo moo daa tax sax mu am barke ci ñoom kon xasida lu rëy la tudd yàlla la waaye tudd yàlla gu la gu rëy gu am barke Sëñ wax na ne mboolem li borom xam yi di daw jëm ñi ngi daw jëm moom ci mbindam mboolem li awliyaw yi daw jëm ñi ngi daw jëm ci mbindam farra li nadmi wa li nafri kullu ma farra ilayhi al ulama wal nga xam ne maarifa billahi subhanahu wa taala da koy def ci xol maanaam mbindum sëñ bi da lay yóbbu ci xam-xam bu leer li wax na yebussu xayral ilmi xatti fi sudur kon foo loolu it des na ci xamee solo si mbin mbindum sëriñ bi am nga xam ne ngërëmul yàlla da cee ne li sëñ bi wax ne ilaa xattiyal baaqi yaquudu ridaahu ngërëmul yàlla da cee ne maanaam mbindum sëriñ bi sëñ bi ci njëlbeenam da daa ñaan suñ borom boole ko man na loolu sax mel na ci du ci njëlbeen ga waaye daaraa ñaan rek sëñ bi boole suñ borom boole ko ci mujizaati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wajal xurufi mujizaati nuxirat wa xayra xayraatin ladayka duxirat waaye ñaan gi suñ borom nangu na ko ba moom la wax ne qasaidi min mujizaati muntaqa suñ borom boole ko ci mujizaati yonent bi sallallahu alayhi wa ko loolu kon loolu genn wet la ci li ñuy xamee solos xaside yi ci biir dundug murit bi mooy tudd yàlla la waaye du tudd yàlla gu woyof gu diis la gu rëy gu bari barke te di leeru kese ah, te gaaw ci jubbanti doom ah, murit bi gaaw ci jox ko dox bu gaaw ci doxub góor yàlla yi am na geneen wetit goo xam ni xawma dinaa ko mën a misaal ba mu leer waaye gu am solo la te mooy kii jàng xasida day mos xeeti maanaa yoo xam ni yu wéet la yu kawe maanaam léeg-léeg day dund ci géeju tawxiid goo xam ni moom ci moom mën na même bu xamul li xaside gi wax ruuxam xam na li xaside gi wax léeg-léeg nga dugg ci xaside goo xam ni gu mel ne gim tënke laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah nga gis mi wax ne akrim bi muxnin xafidin laa sharika lahu fi lmulki walhamdi lam yulad wa lam yalida allahu jalla ilahun la nadira lahu qataan wa man bisiwa daa jaa qad fanada lahu samawatu wal arduuna jumlatuha maa shaa kaana wa maa lam lam yakun abada allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrun latifun maanaam maani yoo xam ni yu kawe la ci tawxid léeg-léeg kii jàng xasida mu dugg ci géeju ubudiya bu kawe waxin yoo xam ne yow sa bopp mën nga dund ba jóge fi te doo ko mën a wax sa diggal sa borom sëñ bi wax ko mu nekk ak xasiida goo xam ni ci misaal al matlabul maqaril asna nga xam ne sëñ bi da ko tàmbalee turi yàlla yépp la la la tawasul ba noppi nag dooga a tàmbali di wax wax ju kawe ci ubudiyya diggam ak boromam kon a xam ne ne xasiida yu bare bare ay déyaale la munaajaat la boo xam ni sëñ bi daa nañ ko gis mu julligee sëñ Mor sëñ Moodu Xari Sil wax na ne gis na sëriñ bi mu julligee ba noppi toog fi mu toog sol lu weex tàll jublu penk ba fajar jógul di deyaale borom deyaale googu yi nag kii jàng xasida day dajeeg moom di ko wax sëñ bee ko doon wax ak boromam waaye yow yaa ngi ñëw mën a mos ci wax jooj yi nga xam ne ju kawe la ju suñ borom bëgg la itam ubudiyya gu kawe mu ngi ci ci misaal li ma ko waxee matlabul maqaril asna da ngay gis muy wax ne yaa sayyidi suñu borom lay waxal yaa sayyidi ana alfaqiru alfaani wa innani alabdu alxaqiru aljaani ana allaimu albaisu almiskinu ana aldaifu aljahilu almadinu ana alkasulu alaajisu alsaimu ana albaliidu almujrimu almuliimu ana alakuulu wa ana albattaalu wa innani alnaaimu walqawaalu wa innani alxariisu du iltifaati wa innani sucluuku du alxaajaati ana alladi maa ziltu daa isyaani wa gaflatin fi kulli ma axyaani ana alladi afsada sacyi alriyaa walcujbu walsumcatu tuuna dahriyaa ana alladi qad caaqani almanaamu min an yuraa dahran liya almaqaamu muy dem rek wax ju kawe ci ubudiya diggam borom subhanahu wa taala léeg-léeg kii jàng xasida mu dugg ci maani jeex ci sunu borom xasida gi mu tënkee radiyallahu anhum wa radu anhu tàmbalee rabbi karimun waasiun wa yufaddilu wa wasilati abdun ladayhi mufaddalu da ngay gis mu joxe léppam ba nga xam ne moom deseetu dara jaam la boo xam daa seet léppam ci sunu borom laka kalkali laka jussati laka niyati laka gurbati wa mawaatini wal manzilu laka malbasi wa yaraacati mac lawxiha wa laka almidaadu wa mashrabi wal maakalu hab li idaamata maa tuxibu wa tartadi fi maskani tuuba allati laka tunzalu an karti xaali wa intiqaali raadiyan muy dem rek ki jàng xasida ruuxam day mos maanaa yi maanaam yow man suñu classe gi mën ngaa bañ a xam ci li xasida gi wax dara waaye sa ruux moom xam na bu wér wax ji moom mu ngi koy mos itam loolu mu indi yëg-yëg yi nga xam ne moom la mur di yëg am na geneen goo xam nit ubudiyya boobu nga cay fekk waaye ubudiyya ab jàngkat la ak borom xam-xam nga xam ne day mel ne mantiqu kuy sàkku xam-xam mooy wax foofu ci kaw ubudiyya bu kawe mooy xasida gi mu tax gi mu tënkee waqul rabbi zidni ilman nga xam ne yow da koo tàmbalee ci wajjahtu wajhiya jaahilan faqira lillahi abdan xaadiman xaqira qultu muxaatiban lahu wa huwa alkarim wa kawnuhu lii abadan minhu arum laka stakaytu yaa alimu jahli nga xam ne ubudiyya bu kawe lay waxee suñu borom ci kaw nag jàmbat ko maanaam maanaam maanaam maanaam di sàkku ci moom xam-xam xam-xam bi suñu borom sàkku bi sëñ bi sàkku nag wuta na xam-xam yi ni jàng ci téere yi mooy wa allamnaahu min ladunnaa ilman léeg-léeg kii jàng xaside mu dugg ci xaalu rida boo xam ni mel ne xaside ak asiru xanaa sëñ bi wax na jafe-jafe yi mu toll ba noppi nag jiiñ ko seytaane waaye nag dugg nag ci xaalu rida bu kawe ak sant yàlla qusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li madxi alladi anhu qasiru teg ca xaruurul wara xarra nasara bi kaydihi wa dannu dunuunan wa dunuunu xuruuru nga xam ne lépp da koo jiñ seytaane waaye teg ca nag li rabbil tifaati laa lahum taiban lahu min addambi wal aafaati wa huwa gafuuru lahu tubtu min aybi iltifaati li gayrihi wa minni lahu ahdun alaya damiru ba àgg ci wa fi lqalbi min ridwanihi maa ukinnuhu dalilan bihi inna suduura quburu loolu kon ki nga xam ne day jàng xasida dafay xuus ci géeji maani tawxid yoo xam ni ruuxam moom dana dana xam dana yëg bopp bu mënta xam ne dana yëg lii muy jàng ndax sëriñ bi wax yu kawe la wax ci diggam ak boroom xasida léeg-léeg boo ci xuus da nga jàpp ne tagg suñu borom rek la li mu wax ne yallaahu ya xayu alladi laysa yamut maa li ani thana alayka min sukuut waaye léeg-léeg itam ki jàng xasida day dund ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg mu dund ak wasfu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu mel lay janloog moom te loolu ni ma ko waxee léegi rek boo ko xamut it sa ruux mi ngi jandoog wax ji mi ngi xam li li muy tekki mi ngi mel ne kuy jandoog rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te gis bul xulóob dañuy gis yaa mulhiman qad waffaqa salli ala man xuliqa wal xalqa faaqa xuluqa kal xalqi wa tusallimi qad kaana daa tawassuti di ko melal melal bu yéeme fil qad jaali sututi walam yakun bi ba àgg ci wa wajhuhu wa wajhuhu wa huwa qamisun azharu wa huwa bahiyun asmaru murattilu takallumi léeg-léeg nga dugg ci biir xasida foo xam day xuus ci askanu yonente bi salaa sallam ak siiraam lu mel ne almashrabu shaafi nga xam ne da caa lim mbooleem ñi yonente bi askanoo léeg-léeg nga xuus ci géeju tagg rasulullah salaa alayhi wa sallam itam lu mel ne xasida ak alqalbu minni masalan léeg-léeg nga xuus ci géejug julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam ci julli yoo xam ni bu doon yow kese mënoo koo tëggal sa bopp ndax julli yu ànd ak cofeel ak bëgg rasul lay gu dem daya nag moom lay julli ci misaal xasida gi gi tàmbalee salaatun wa taslimun min an naafiil mawla da ngay gis mu julli ci yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam waaye maanaam mooñee ko xeeti waxin wu kawe ci ci ci ci ci ci cofeel ak bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaatun wa taslimun min allahi sarmadan ala man bihi arju min alwaasii nayla ala junnati dunya wa uxra wa jannati ala man nahaari saara min xubbihi layla ala rahmati almuhdaati lil xalqi jumlatan anisi alladi xubbi lahu saara li layla ala qudwati kanzi wa jaahi wa izzati shafii alladi ansaani alxiida walxayla ala xujjati dunya wa uxra wa xajjati shafii alladi ukfa bihi almakra wa sawla ci biir nuuru daare ni da leen nga gis salawaat yu mel noonu salawaat yoo xam ne day fees dell ak bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salli salaatan laa tazaalu mudxila bichran bi taslimin te fii muassala fi qalbi man laysa yumaathilu lbashar fi lxalqi walxulqi wa kasrati lbushar ba tey ci jàng xasida léeg-léeg mu dund ak alquranul karim nga xam ne maani yu kawe ci diggante sëriñ bi ak alquranul karim lu mel ne xasida gi mu tënkee lam yem sashum suun wattabacu ridwanahu minhum noonu la ko tënkee alayka usni yaa kitaaba rabbi wa anta lii xillun wa anta xibbi waajahanii bika albaqaau yaa kitaab rabbi wa zaxzaxta li xayri alcitaab anta alkitaabu wa siwaaka wa siwaaka taabicu laka wa inni maasikun mutaabicu raditu anka yaa kitaabu abadan bi xayri suxtin fa ulaaya abida diftuka yaa kitaabu xallid lil qira muy dem rek kii jàng xasida léeg-léeg mu dund ak istigfaar mooy jéggalu yonent bi ay xeeti jéggalu yoo xam ni yu kawe kawe lay doon mel ne xasida gi mu tënkee rek astagfirullah bihi nga xam ne fii gone yi sunu gone yi sunu tuut tànk yi foo leen fekk ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy daaj astagfirullah alazima wa atuub ilayhi min dawahirin wa min guyub saaltuhu bi xaqi wajhillahi magfiratan min jumlati almanahi mel ne tuxfatul awwaa nga xam ne moom dara gënu koo kawe ci istigfaar noonu mu ko tudd rek tuxfatul awwaa da nga fay fekk xeeti istigfaar yu yu yu kawe wa baadu fal qalbu minni l yowma du alami min kathrati dambi wal afaati wal gumami fa qultu da tawbatin lillahi min nadami astagfirullaha mujri lfulki fi ddulami ala ubabin min attayyaari multatimi astaghfirullaha min qawli ana wa ma'i wa li wa indi wa min dhanni xeeti waxin yu kawe kawe yoo xam ni buñ ko doon jàng fii dangay ngay da nga da ciy déggee istighfar bu kawe kawe boo xam ni kenn ku ne ci ñun ñi mënuloo ko sa bopp da ngay dund itam kii jàng xasida day dund itam maanaam ñaan ñaan dëgg dëgg sëriñ bi mën nañ ne mooy ki ko man moo xam xàq suñ borom xam na mu koy defee loolu te moom ak ñaanam loolu mën nga ko fekk ci xasida ak wal baladu tayibu ñaan yu am solo tàmbalee ci asaluka naylal muna bil istilaab wala gururin bin nabi ni kilaab waaye ak ñaanam du ko yemale ci boppam li muy fàggu da koy fàggul boppam ak xeetu yonent bu yëpp ak jaam yëpp loolu it lu mel ne wa kaana xaqan gis nga ñaan yam ca ñaan ñaanal ko xeet wépp aw si li kulli muslimin wa muslima masarratan yaa kafaani zalama waaye ñaanuk sëriñ bi itam li li tax ma wax ne daa wuute ak yow moo toogoon di jéem a ñaan mooy sëriñ bi dafa xam fi muy jaar bopp boroomam subhanahu wa gis nga ca adduru sabil ba mu ñaanee ba noppi lam ko tëjee da wax ne yaa sayyidi inni daawtuka kama amartani bihi wa kunta al akrama فليستجب ولجميع المخلصين كما وعدتنا ونرجو كل حين واغفر ذنوبي وتقبل عملي بلغ صلاتي لخير المرسلين وبلغا شأني له واجعله لي وللجميع شافعا في الوجل wala tuwaaxidni bi kufri lmalali yaa maljayi xatta tarudda amali wala tuwaaxidni bi suui ladabi wa qillati taqwa wala tuxayibi falastu ajhalu bi suui kasbi wa qubxi caybi wa kufri dambi law lam takun akrama min kulli karim lama dacawtuka wa innani laim lakinani lamma gadawtu afqara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 wala azalu laa izan bika abad wa bi rasulika shafii lmutamid mutamad muhammadin salli wa sallim ya badi alayhi wa ali waxin wii suñ borom du ko delloo mukk subhanahu wa taala moo tax kii dund xasida yi day dund maani yi day dund maanaam sant masalan masalan may yi sëñ bi wax ci xasida yi dinaa wax ne buntub sant la ndax day wax lim ko li ko suñu mu defal manes na ci joxe misaal nuuru daare bi xam ne xasida gi yëpp xasida ak cant la waaye dinaay wax ne xasida gi nuuru daare bi yëpp ngi wër ci wenn bayit mooy lam tansani rabbi wala ansaaka yaa man lahu taqdimu ka tamliki asamtani min darari almuluki xam day wax lim ko defal yaa man lahu alxalqu kama lahu al umuur kafaytani fadlan ada kulli amir yaa naafian bi kulla man yazuuru xamaytani maa darrani waziru yaa man lahu kun fa yakunu yaa malik xamayta kulli an mashaqaati suluk alimat al aadaau anni indaka laa indahum sabartani an alxaraami qablu wa fitnatu nnaasi mahd walkablu sabartani an kulli makruhin lada kawni gariban sabartani an kulli ma laa yanfau sabartani ala imtithali amrika ba ak ci safayta qalbi muslihan musaddidan bika lisaani qutta jawaarixiya ila al amali yooyu ji mooy lam tansani rabbi wala ansaaka da ca gën nag mooy walam tuwajjih lilladi yansaaka walam tuwajjih lilladi yansaaka mooy nun ñii ko ñii ñëw bootu ci moom kon xasida ki koy du ki koy jàng xasida mooy doxub Sëriñ te dox bu Sëriñ Tuubaa la lépp ci boromam la mooy li wax ne waqaadani ilayka yaa rabbi bika wa qudtani bika lahu bi xubbika fa qumtu majzuban ilayka minka bika alayka wa raditu anka xam nga dox boobu <laughs> dërëjëf <laughs> kon xasida mooy doxub Sëriñ Tuubaa ki koy jàng mi ngi tiim lu kawe lu rëy lu diis lu mat a bàyyi xel dam lu mat a jëfee teggin yi laaj yoo xam danañ ci ñëw insha allahu taala waxuma ne jëmmi xasida waaye turi xasida yi rek day wane maanaa mi ci biir bu dee xasida xam-xam yi dañuy gis mu wax la mu layyinu sudóor xam ne lii day day day nooyal xol wala jësbatu sigaar an laibin li nga xam ne day ñoddi maanaam ndaw li ak waxambaane li yóbbu ko ci liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa jële ko ci mpo ak lépp lu amul njëriñ masaalikul jinaan nga xam ne moom da lay war yoon yi ñuy jaar ngir dem àjjana tasawudu shubaan nga xam ne képp kuy dox ci yoon yi war nga aaje ak yóbbal tasawudu shubaan ak tasawudu shaqaar silaaxu ahlil xawfi nga xam ne moom kuy dox ci yoon yi war nga aaje ngàndaay turu xasida yi gis nga noonu na lay defee al jawharu nafis kuy dox ci yoon yi nag da nga da nga daje ak ak ak gànjar yoo xam ni yow ma ca dox rek yaa xam ku ca doxul mënut a gis gànjar yooyu mooy al jawhar an nafis ak silku al jawahir silku al jawahir muy dem loolu it boo gisee ci xasida dëkk dëkk tudd yàlla itam noonu noonu la demee tur wi rek daray jox jasbul qulub li allaamil xuyub ak nuzhatul aashiqi fii madxi xayril xalaayiqi fataxul fattaax sullamul wusul loolu mu tudd al abraar xesnul abraaril hudaati wala kanzul muhtadiina wala tuxfatul mutadarriina muy dem maanaam tur wi da lay wane ne lu lay xëcc la lu lay jëlee fii nga ne yóbbu la ci beneen aalam bu bokkut ak bee nga nekkoon léeg-léeg mu am tur yoo xam day boole ñaar yëpp matlabul fawzayni wala euh, majmau nuurayni muy dem kon kii jànq si de ànd ak yooyu yëpp day dund ak sëriñ bi itam téere yii xam-xam yi rek ku ne xam na ne téere boo ciy liir da ngay di dund ak borom téere bi ak ki bind ak ki bind téere bi ki bind téere bi maanaam téere bi dafa mel ne seetu ci moom jëmmam ak i meloom ak jikkooy biiram mooy feeñ ci téere bi mbindum sëñ bi itam loolu loola ci am ki koy jàng te sax ci day dund ak ruuxuk sëriñ Tuubaa sëñ Mbàkke bi su am fu mu wax ne ñu njëkk a topp sëriñ bi seen nubsatul mubaaraka Cheikh Mouhamadou Lamine Diouf Dagana wax na ne sëñ Mbàkke wax na ne ñu njëkk a topp sëriñ bi nee na ñooñu gaaqu seyxa ma dañoo mos sëriñ bi maanaam ñi nga xam ne ñoo dëkk ki jàng yi tam foofu la ko yóbbu mooy mos sëriñ Tuubaa ndax day lëkkale ruuxam ak ruux sëriñ bi ndax sëriñ bi foo fu sa demee ci moom rek maanaam loolu ulam falaasifa yi sëñ xat pàkk ñoom danañ xam ne wax ma nit ki li muy xalaat ci xalam nii rek loola maanaam am na wujjóot bu mu am wujjóot bihin yi boo xam ni xam loolu duñ ci gën a dugal kon ñu ñëw ci beneen wet goo xam ni day wane solo xasida yi mooy kii jàng xasida loolu da koy may ak ak aju ci sëriñ bi taalluq ci sëriñ bi te taalluq ci sëriñ bi dara gën koo kawe suñ Tuubaa mooy cheikhun xay boo xam ne yàlla da koo def mu doon yonente bi zahiran wa batinan wax ne tarqiyaat yi nga xam ne moom la gaañ yi am ñëpp ci moom lay jaar wa bii turaqi lulama akramtani ikrama faalin lima yuriduhu wa bii turaqi lulama laqantani ya malik alfada wa bii turaqi xisbaka alxufada wallahu raqa bi ma li qaada aqtaaba kon tarqiyaat yëpp ci ruuxam gu sell googu day jaar suñu borom moo ko def mooy buntam ba jiital ko rasulullahi jiital ko bushirtu anna rasulallahi qaddamani mi mel ne centralu courant bi nga mën a am jokk ci moom day wuuteeg nga jokk ci pot lampe bi nga xam ne moom moom moom fa mu jokkoo ak ba kër mu ak central bi kenn xamu kañ la nga xam ne waxtu ne mën ngaa mën mën ngaa ñàkk courant yow maanaam moo tax aju ci sëriñ bi bu rëy la te loolu jàng xasida ak xasida yi rek da koy maye ak yeneen yu kawe yoo xam ne mu ngi ci mi ngi aj ci sëñ ñu ñëw itam ci beneen wet beneen tomb boo xam ne mooy ñetteelu tomb bi te mooy masala yi nga xam ne laale na ak xasida yooyu nag buñ ci bëggoon taxaw dana gën a gudd waaye dañ koy tënk rek te mooy jàng xasida ci suuf ak jàng ko ca kaw loolu sëñ bi ca masaali ko jaan wax na wuute bu ci am am na ñu ne jàng ci suuf moo gën am ñu ne yëkkati bi moo gën ku ci ne wax na teg tegtalam waaye sëñ bi foog mujjee mooy dafa wax ne bu fekkee ne xam nga ne mucc nga ci ngistal kon yow maanaam boo ci xawee ragal ngistal rek in kaana xaaifan min arriyaayi fa xaquhu israaru boo xawee ragal ne ngistal man naa am ci lii ngay yëkkate ca kaw nee na yow jàng ci suuf moo gën ci yow soo xamee rek ne mucc nga ci ngistal moom man ngaa jàng ca kaw ndax loolu keneen mën na la cee roye te bu da nga am tiyaabay yow sam njàng ak njàngum kookee la ca roye jàng ci suuf ak ci kaw it lépp lu ci ne rot na ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ana maahu ida dakarani fa in dakarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsi wa in dakarani fi mala in xam loolu moom moom moom jàng ci kaw la moom fii mala in kon jàng ti suuf ak jàng ci kaw ñaar yëpp la lislaam daganal mu amit meneen masala te mooy ndax nit ki moom mu jàng moom kese wala mu ànd mbooloo mi jàng loolu ba tey wuutiwul am nag mbooloo mi jàng loolu it lu maanaam ñaar yëpp baax ñaar yëpp a kawe lu ci ne lu ci ne itam am na ay sikku saison yu ci mën a tàbbi waaye boo ca muccee rek mu baax yonent bi wax na ida marartum bi riyaadil jannati fartau qaalu wa ma riyaadul jannati qaala xilaqu dikri xilaqu dikri kon daje di ko jàng ci mbooloo loolu it lu am ci la mënoon nañ ci wax lu bare bare waxtu ñu koy jàng itam xasi maanaam jàng xasida mooy tudd yàlla rek amul waxtu waxtu yëpp lañ lañ lañ lañ koy defee alladina yadkuruna yadkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim soxna Aysa neen yonent bi kaana yadkuru llaha ala kulli axyaanihi aw kama qaalat radiallahu anha ba tey waaye subaak ngoon da cee gën moo tax wird yi nit yi ñoom ñu def ko ci ci waxtu yooyu subaak ngoon ginnaaw julli suba ginnaaw julli takkusaan mooy wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghurubiha waaye ndax kii jàng xasida daa war a toog wala daa war a taxaw wala war a tëdd xasida moom mooy tudd yàlla rek anam goo ko jàngee rek baax na alladina yadkuruna la qiyaaman wa qu'udan wa ala junubihim waaw noo ko jàngee rek baax na jàng xasida nag mu ginnaaw mooy tudd yàlla tudd yàlla dafa am lu ñuy wax dikrul aam ak dikrul xaasa te mooy zikr bi nga xam ne dafa ànd ak ndigal boobu mooy zikrul xaasa jàngu xasida mi nga xam ne yow xasida gi ngay jàng te am ci ndigal wute na xasida gi nga xam ne da nga koy jàng te amoo ci ndigal xasida gi nga xam ne yaa ngi koy jàng te amoo ci ndigal da am tuyaaba rek waaye gi ànd ak ndigal nag ndigal moom ci la mboolem barke ne ak leer ak nangu la lépp ci ndigal googu ndigal ndigal googu la ne meneen masala itam mooy ndax sañes naa jàng xasida ci biir jàkka dañuy ñoo xam ne ndax ne sama waa ji xorom lu wax ma sa wax gaa yi daal sëñ maam day xasi biir jàkk ji ñu nekk fi di ja di yor seen xasi mënuñoo xaar ba génn mën ko ñoom de li ñu def de baax na de maanaam nekk ci bi maanaam ja xasida ginnaaw tudd yàlla def ko jàkka moo ci gën ko te loolu ayut yonent bi sallallahu alayhi wa daana tegal sayiduna xasaanu bnu Euh, saabit ci digg jàkka ji ab tooguwaay di ko wax ne ko xul wa ruuxul qudsi tu ayiduk aw kama qaala radi euh, euh, sallallahu alayhi wa sallam yonente bi daana daana tegtalu ci ay bayit asqad asdaqu kalimatin qaalaha al arabu ni ko buxaari netle kalimatu labidin ala kulli cheyin ma xala allaha baatilu loolu bari na cëslaay waaye defe ko ci biir jàkka ji itam dara nekku ci waaw soxna Aysa nettali na ne moo nettali lii ma wax ni ne Xasan ibnu Saabit Buxaari daa eh, muslim imaam muslim moo ko nettali bokk imaam Ahmad imaam Tirmisi ne Xasan ibnu Saabit yoon tamit da ko daa tegal ab tooguwaay ci jàkka ji di ko wax ne ko inna allaha yu ayidu xasaana bi ruuxil qudsi maa yufaaxiru aw yunaafiqu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na ginnaaw ginnaaw ginnaaw yonente bi sayidna abu abu hurayra nettali na ci xadis muttafaq alayhi ne sayidna omar dafa fekk sayidna xasaana ci jàkka ji muy wax ay bayit yoo xam dañ ci tagg bi nee na mu xool ko bët boo xam daal xasan xam na ne kilifa gi boobu mooy amirul muminina xam na ne bëggul ci moom xasan nee na sayidna abu hurayra nee na mu gestu ma moom xasan gestu ma ne ma أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس ndax ne ko Abu Hurayra maa ngi lay laaj ndax yow déggoo yonent bi ci boom wax ma ne yàlla ci boom dana la dëgërale ak ruuxul qudus ne ma tontul yéefar yi waxal li ngay wax del way way yi ngay wax dee ko wax qaala naam am na benn boo xam ne sax da Seydina Xasan dafa wax Seydina Omar ne ko jàkka jii de daanaa fi toog di ko wax te booba ku la gën mi ngi fi muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar euh, imaamu Saatibi ca kitaabul ixtisaam wax na ne dafa am ay nit ci jamonoom ay nit yoo xam ne dañuy ñëw ne ko nun di suñ jàkk jële dafa am imaam jafa ne daal su jullee ba nopp day nekk di way rek di daajantu di daaj yëkkati ay daaj Seydina Omar ne nan dem seeti ko yow ah, yow julli julli imaam julli ba noppi tàmm di daaj bi ñëwee ne ko yow de dégg naa ñu ne boo jullee ba noppi da nga fi nekk di way mu ne ko eh, Seydina Omar dana ko balagani amrun saani atata majjanu fi fi ibadatika da ngay way di ci biir julli gi mu ne ko li li may wax de ak ak waar la goo xam ni izatun aidu biha nafsi sama bopp laa jubloo waar rek ay bayit la yoo xam ni sama bopp laa jubloo waar Seydina Omar ne ko waxal mu dégg su dee lu baax ma bàyyi la nga di ko wax su dee safaan ba ma aaye la ko léegi te doo ko defati mu tàmbali nag di wax ne wa fuaadi ma aatabtuhu fi madal hijraani yabgi taabi laa araahu dëhra illa laahiyan fi tamaadihi faqad barraxa bi yaa qarina suui maa hada siba faliya alcumru kada fi llacibi wa shabaabun baana anni famada qabla an aqdiya minhu arabi maa urajji bacdahu illa alfana dayaqa shaybu calaya matlabi wayxa nafsi laa araaha abadan fi jamilin laa wala fi adabi nafsu laa kunti wala kaana alhawa raqibil mawla wa xaafi warhabi sayidna omar ronkoñ nga tuuru mu jooy jooy yu métti baamu bayit wi mujj wax ne nafsu laa kunti wala kaana alhawa raqibil mawla wa xaafi warhabi ne ko ala misli hada fal yuganni man man ganna ah, lii de ñëpp ko war di way lii ngay daaj ñépp ko war di daaj buñ jullee ba noppi wax ji xëy na mënuñu koo tekki waaye day wax boppam ak yedd boppam ak dund gi jeex ak bakkaar bi bare yu di demee te loolu la ca ne xasida yi ñoo ko gën a jege ak ak ak ak maanaam ñoo ko gën a sell wax maanaam ñoo ko gën a kawe daal ci safa ar wax yi ci xasida yi la gën a ne muy dem rek ba ci kiy jàng xasida bërëb bi gën a kawe bi ñu koy tegal mu gën a kawe loolu mu toog ca loolu dara ko ci wax naa léegi ne Sayyidina Xasaan yéen tamit da ko daa tegal bërëb boo xam ne moo gën a kawe mu toog ca di wax ay xasida di tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci njëlbeen dinaa toog ak ñëpp ginnaaw bu ñu defal ko bërëb bu gën a kawe moo tax loolu lépp tegtal la ci ne yooyu dara nekku ci kii jàng xasida itam tey jàngkat bu ndaw comme suñu classe gi léeg-léeg sa xol tooy nga daanu loolu mën naa yem ci jooy kese mën naa nekk nag yëngutu nag mën na ci ànd waaye loolu nag moom la ñu wax wajdu ak tawaaju loolu dara nekku ci itam loolu lu naturel la itam ci jàng ak tudd yàlla alam yaane lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dicri illahi wa ma nazala min alxaq innama almuminuun alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum li yéeme kay mooy loolu bañ laa dal mooy fa waylun lil qaasiyati qulubuhum min dicrillah loolu imaam ahmad zarruq ci xawaayu tasawuf wax na ci lu bëree bëri ak ñeneen ak ñeneen cheikh abou madin al gaws bu mu amee ñu koy diingat ci daanu jël yi gaa yi daanu jël maanaam di jooy waxuñu nag mbëkk moo xam ne daanu jël boo xam ne da takk ay ay mbir wala yow da jël day loo xam ne waroo ko gàttanu di ko gàttanu ak def ko loo xam ne moom moom adduna dajee ak bëgg nit ñi xam ne yaa ngi ko jël xam nga loolu moom baaxul jël sax nag aslan li ma ko waxee murit murit bu ndaw moom maanaam moom ndax dañoo wax ne mbër muy daanu du ub làmb mbër muy daanu du ub làmb mukk waaw cheikh bu ma dee na xaw si nag bi ñu ko waxee jël yooyu gars yi daal mu ne leen wa qul lilladi yanha an ilwajdi ahlahu ida lam tazuq maana sharabi lhawa daana ida ihtazat alarwaxu shawqan ila alliqa tamayadat alashbaxu yaa jahil almaana kon loolu moo nañ ci wax kii jàng xasida itam mooy kii tudd yàlla bëgg gi mu bëgg yàlla ak yonente bi ak sëriñ bi luy màggale ci biiram mën naa dem ba àgg ci du mën a def ak ñëpp loolu day am loolu it du xaal bi gën waaye luy gaar la kiy jàng xasida itam te itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax waxoon na ne akthiru dikrallahi xata yaqulu majnun ci bi nekk ci musnad imam ahmad ak abu yaala ak bayhaqi ci shu'ab al iman maanaam man ngaa dem ba ba nit ñi dootoo bokk ak ñoom ak bëgg ñu jàpp ne yow nekk moo yow yow yow yow nga am sa xel àndoog sa sago te loolu ku ne tuumaal nañ ko ko de ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ca sëriñ bi xaalu safihun waaye buñ leen buñ la tuumaalee ak ñàkk ànd ak sa sago ak nitoo di ko itam ndof googu moom dañoo ne xel day ñëw sujjóot fi kanamam sukk fi kanamam sujjóot majaaniinu laakin inna sirra junoonihim garibun ala aataabihi yasjudu al aqlu kon loolu ay masala la yoo xam ni kii jàng xasida itam xaal yooyu ñuy wax mën na koo jural ay njuumte ndax tam xol mi muy àndal bëgg gi muy bëgg ci sëriñ bi ak gi muy bëgg ci yàlla ak gi muy bëgg ci yonante bi bëgg mbëgg moo xam ne cofeel moo ko lal bu rëy loolu day indi ay njuumte njuumte yooyu nag bu dee ki koy def antoog soogom des ko koy jégal kenn du ko roy ci tasawuf dañu daan ne ki nga xam ne majsuub la kenn du ko roy bul ko sax ñaan loo ndax mën na laa ñaanal xaal bu bi mu nett bi mu nee gënul ci yow waaye bul ko dingat bul ko roy bul bul ko laaj bul ko ñaan bul bul ko topp waaye bul ko dingat itam waaye njuumte yooyu nag mënees na ko dégg ca la yonente ba waxoon ca waa ji nga xam ne dafa yoon giléem ca digg àll ba giléem nga réer ko ba mu jàpp ne moom day faatu ji digg àll bi mu jekkee gi ne xeneen gis giléem gi ne allahuma anta abdi wa ana rabbuka ci riwaayat imam muslim yonent bi da wax ne axtaa min shiddati l farax axtaa min shiddati l mi nga kon shiddatul farax itam day jur xeeti njuumte yoo xam ne loolu it lu mat a la waaye ki mu dal itam bu fekkee da koo dal te dëggu ci moom ndax suñu classe gii nag mënut gi sama classe gi dañ cee bari ñoo xam ne la ñuy wax ak la ñuy wane xaal bi ñuy wane ni bokkut ak biñ <laughs> ne loolu mën naa am yàlla musal ci lu yàlla musal ci lu mel noonu waaye xasida sëñ moom mooy li gën a mën a yëngal xol te yëngal gi muy yëngal xol du xoli murid rek la yëngal sëñ bi wax na ne anbiya yi day yëngal seen xol haajat qasaidi qulub al anbiya maa al malaikati ba malaayika yeeg ambiya yëpp la yëngal xam nga malaayika yeeg ambiya yi lu leen di yëngal seen xol mën a yëngal xolub murid simple boo xam ne moom classe gi ñi ñeeyaanu aras day yëngal seen xol haajat qasaidi qulub al xamala lil arsi haajat quluba kuréelub suñ borom bi hajat makaid makaatibi quluubal jundi wa dikruhu alxakimu kanzun indi nit ñu baax ñi hajat qasaidi quluuba wa li yaqudu lahu suuli képp ku ku am dara ci ak mbaax ako texe itam day mën a yëngal sa day day yëngal mooy day day def mbég ci sa xol rek loolu lañ jublu man lahu saadatu ba ca aras suñ borom ida katabtu tazza arsullahi waaye sëñ bi wax na ne ihtisaaza ikraamin wa ijlaalin wa taadim ihtisaas bi liñ jublu mooy mooy bépp ak màggal rek la jublu xam nga arab yi bu ñu waxee ne fulaanun yahtazu lil makaarimi liñ ci jublu liñ ci jublu mooy <clears throat> irtaaxa lil makaarimi rek wa farixa biha loolu lañ jublu jubluñ ci yëngutug ni niñ ko xamee nii ba ñenn ñi tàmm di ko dingal te loolu gis nañ euh, ci Buxaari ak Muslim yëpp gis nañ fa yonent bi wax ne ihtaza al arsa an al arsa ihtaza li mawti Saad ibni Muaz ihtizaz mooy farax xam nga ars moom ak aljana am na am na ci xadis yonent bi wax ne am na ñoo xam ne aljana day bëgg ñu gaaw ñëw ñoom istaaqa istaaqat ila ila ammar ila aliyin wa kama qaala sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu kon àjjana am na ñoo xam ne dina yàkkamti aras itam am na saadu bu ñëwee day bëgg ngir ñëw ngir del si gëm del si foofee loolu yi la moo tax kon yëngal gi muy yëngal xoli xoli taalibe yi loolu it masala la moo xam ne mën nañ ko yàpp masala euh, tasawu waaye dara nekku ci lu lu lu yanu maanaa la ndax gis nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci Buxaari mu nett li ne bu ma saa di dem kii màng giléem yi di ko wommat day way anjasa ba mujj yonte bi di ko wax ne ko ruway daka yaa anj anjasa urfuq bil qawaariri wala urfuq yaa anjasatu way xaka bil qawaariri rifqan bil qawaariri ay riwaayat yu bare bare yoo xam ne ko xam defal ndànk ndax buy way ak di sadd ak di daaj giléem yi dañuy daw lu ëpp liñ daa daw jigéen ñi tàmbalee son yonte bi ne ko nag ba maanaam yërëmal jigéen ñi ci kaw giléem yi ndax giléem yi ñoom dañoo yëg maanaam way day jeexital jeexit ju rëy way kese rek day jeexital waxuma laa nag way yoo xam ni ak xasida goo xam sëñ bee ko def waaw gis nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi Kaab ibnu Zuhayr ñëwee ci jàkka ji sadd xasida googeeg baanat suaadu fa qalbil yowma matbulu yonente bi dafa simmi mu ba mu jox ko kon kooku maanaam xasida gi jeexital na ci moom yë yëngal na xolam sëriñ bu mag bi itam nga xam ne yàlla rek mooy li mooy li mooy ki fees xolam mooy ki yëngal xolam waaye gis nañ keroog bi ko Cheikh Sidiye Baba baabul Cheikh Sidiye ba mu ne yarda ida jarat al umuru musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha laa taxjubu al asbaabu anhu xaqiqatan intaha fi zulumatiha mantaha dafa wax ne al aana madaxana al aana madaxana te loolu sëñ mosu ko wax moom ci ci yeneen yeneen yeneen kon noonu demee ñu ñëw na kon jeexale ci naka dañuy jariñoo ci xasida yi xasida yi waxoon nañ ci njëlbeen ñaari xeet la xasida yi xam-xam ak xasida yi tudd yàlla xasida yi xam-xam yi taalibe bi da ko war a yittewoo di ko jàng ngir xam fi muy jaar dinaa dinaa wax lu bare bare ne murit bi buñ ko doon misaal ci ab oto oto mënut a ñàkk gaasuwaat mooy waalam bi am na dikra xuutul xal bi xasida yi tudd yàlla yi mooy mooy mooy dund mooy gaasuwaalu xol waaye oto itam faw mu ay ay yoo xam ne moo koy wan fi muy jaar lu ko mooy bu yoree gaasuwaal di daw euh, vitesse wu xiir te yurti làmp xam nga kooku mën naa mën naa dal fu ne xasida xam-xam yi nag ñooy làmp yi làmp yooyu mun ci ñàkk waaye itam oto itam gaasuwaale ki làmp baax na ci waaye ku koy ku koy bijjanti itam ab ab ab ab ab ab sëfoor uh, bu koy bu koy baax na ci sëfoor boobu nag mooy ab sëriñ ñett benn mun ci ñàkk boo ci neenoon rek jafe-jafe am faw nga amub sëriñ faw ngay jëfandikoo itam xaside xam-xam yi boo boole ko boole doo ko boole tudd yàlla yii nag tudd yàlla yi xaside yeeg maaxoos yeneen ak yeneen tudd yàlla yi ci yoonu yëpp muy dem moo tax xaside xam-xam yi moom des ko war a jàng ndax sëñ wax ne bi xat yi yuri man yabtaxi hadiyahu wa bi xasaayid yi yahtadil murid kon xasida yi xam-xam yi moom des ko war a jàng waaye ki nga xam ne mooy jàngkat bi yoon wi ñaar yooyu ñaari xeet yooyu sax la xaw a séddali ko am ñoo xam ne féete ci xam rek nga xam ne booluwoon ci wet gi am ñoo xam ne maanaam day féete ci maanaam jàng xasida ak zikr rek waaye booluwoon ci itam xam-xam bi donte murid daa war a boole ñaar yëpp nag waaw. waaye ki nga xam ne mooy mooy féete ci ci jàng itam war naa ràññee itam mën xëju sëñ bi sëñ bi am na mën xëj boo xam ne mu takaamil la mooy dem junj wax ne hadaytu bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi iyaali bi ma salaati wa bilmati mën xëj boobu lu mat a bàyyi xel la njàngaleem ak lim doon njàngale lépp dafa tegu ci alxuraan ak sunu sunnatu bi sallallahu alayhi waaye xam-xam da cee ne ak jëfe aqlu itam ak naqlu da ko boole waaw ilmun yaji bi aqlin aw bi naqli ni mu ko waxee ak yeneen yu bare bari yoo xam ne mooy ràññeet li mën xaju sëñ bi loolu lu mat a bàyyi xel la waaye itam xasida waxoon nañ ne xasida tudd yàlla mi ngi ci xasida tudd yàlla yooyu itam ki koy jàng aaje na ay teggin teggin yooyu sax mooy sirru nga mën cee jariñu teggin yi nag sëñ bi wax nanu ko wa udda min aadaabi dikri dakiri juruusu abdin fi makaanin taahiri mustaqbil al qiblati daa tarabbuci aw mutarak aw mutawarrikan kaman salla fa'i ba manam jeexe ca masaalikul jinaan te mooy te mooy loolu mën nañ ko misaal ci kii xéewlu xam nga xasida wax nañ ne mooy wala tudd yàlla rek mooy dundub xol jëmm ji buy xéewlu day raxasu booy raxas booy bëgg xéewlu da raxasu ndax booy raxasuwut am na microbe yoo xam ne mën naa taq ci sa loxo nga nga xéewluwaale ko xéewal gi loru la waaye microbe bi nga xam ne moom moom nga danga ngaa rëxasuwul moo tax moo la moo la law xasida itam noonu la àjjana ak set ak laab ki koy jàng daa war a laab toog ci bërëb bu laab itam lu ko mooy lor ji du jóge ci xasida yi xasida moom du lor kenn moom waaye ñàkk a laab doogee moo lay lor waaye kii xéewlu war naa wax bismillah bismillah googu nag bu doon ci jàng xasida maanaam ruux gi buy xéwlu moom war naa def li ñuy wax niyya mooy yéene ku yéenewul doo am dara maanaam yéene mooy ruuxuk jëf innama al amalu binniyaati wa innama li kulli mriin ma nawa loolu la rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax waaye booy xéwlu itam bu dee xéwlu jëmm ji itam booy xéwlu war ngaa jël maanaam lu tolloog sa sa sa sa maanaam lu tolloog sa sa biir nit ñi dañoo wuute am na ñu mën a lekk dégg nga ab kilo waaye am na ñoo xam ne xaaju kilo la ñuy xewlu am na ñoo xam ne kilo boo ko xaaj ñetti xaaj loolu da nga koy xàmme loolu bu dee ci xasida itam nga xam ne mooy dundug ruux bi itam loolu da nga ko ci xàmme seet li yem ci yow nga jël ko te bañ jël lu ëpp waaye itam kenn ku ne am na xéewal goo xam ne moo gën a dëppoog sa jëmm nga xam ne boo koy jëfandikoo dara doo yëg dara benn benn jeexit am na yeneen xéewal yoo xam ne boo koy jëfandikoo da ay wéradi ak yeneen sew sewal loolu it lu am ci xasida yi la kenn kon ne am na xasida goo xam ne ak wet goo xam ne am ñoo xam ne salaatu ala nabi moom moom lañ gën a mën a jëflanteel am ñoo xam ne matxu rasulillah sallallahu alayhi wasallam am ñoo xam ne yeneen xasida yi loolu lu ci mat a bàyyi xel la moo tax kon kii jàng xasida am na tegg ni mu war a jëfandikoo mooy na ànd ak lu laab te teew lu yéene te jël ci lu tolloog eh, ab doxam wala boog lañ ko tànnal te kilifaam tànnal ko ko te itam jamono yi muy jàng xasida mu boole kook toog jublu penku bañ koo dagg bañ koo dog bañ koo booleeg yeneen i wax bu dee ci wutul manxuus bi sëñ bi da wax ne ku dul sa waajur bu waxee yow bul ko tontu sa waajur nag bu waxee yow ba noppi bu wax ja baree dara danga nga tàmbaliwaat te nga teewlu sëriñ bi tam li ñuy wax istixdaaru cheikh loolu mu indi sa xol ak xolam rëkkal lëkkaloo rabtu cheikh rabtul qalbi bi qalbi cheikh nga yéene ci itam ak tërbiya ndax suñ wax ne wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaaliin loolu yi kon mënoon nañ ci wax lu bare bare ci ay teggin yoo xam ni aaje na ko eh, ba tax na kon kii jàng xasida daa war a boole kon xeeti xasida yépp te moytu itam xeeti tawil yi nga xam ne maanaam dëppoo wut ak li wér ak yi nga xam ne ci bakkan la tege bari na xasida ay ay bayit yoo xam ne da nga koy jéem firi yow jéem gi nga ko jéem a firi sax mën nga caa mën nga caa sànkoo loolu lu mat a moytu la moytu itam woote lu nekkul ci yow ak jéem a feeñal ak iddiaat euh, maanaam suñ tubaab bi daa ne ñaari kashfu moo am maanaam loo mën a gis ak loo mën a xamit na yem ci ci yow boo amee kenn koo cee waxal sa kilifa sab sëriñ waaye bul net ci ay ay net li suñ tubaab ñaar la am na mufiid ak mubiid nee na al kashful mufiid bi am njariñ mooy bi lay wan sa sikki bopp bu fekkee yaa ngi gën di jàng di gën a xam sa sikk di gën a jub di gën a baax di gën a ñàkk gis sa bopp di gën a woyof gis ne yow ñëpp la gën yow yaa ngi ci yoon waaye li fekk yaa ngi gis sabaan ba rek jàpp ne gën nga kenn walla gën ngaa kawe kenn wala yëg dara ci sa bopp rek xam na yow maanaam seytaane fëkk na la ba tey am na lu mat a bàyyi xel ci kii jàng xasida te mooy sama classe gi léeg-léeg boo jàngi xasida gis te sëñ ba wax ca loo xam ni ak may la da jàpp ne may gi yow am nga ko fekk yow may gi amagoo ko <laughs> may gi may yi ay ay xeet la ndax am na ci ci biir may yi yoo xam ni sëñ bee ko moom du ma da bàyyi xel léeg-léeg mu wax ne yaa waahiban wahabtali kun fa yakun wajal kitaabaka maay xaysu akoon yaa waahiban wahabtali kun fa yakun loolu du ku jàng nuur den rek am nga kun fa yakun xam nga ne moom ñun ñii bi seet nu jànk loolu daan waaye kon fa yeggoon xam nga ne amagoo ko bari na mbir yoo xam ne yaa ngi koy bu yàgg ba léegi fukki at nangam mënoo fexe ba xam ko kon may googu waxabte lii la wax sëñ bi da ko askan ci moo ko moom ak yaaman waxabte li ujuura rusuli lii la wax moo ko moom waxabte lil aadama yaa marjubi waxabte li kaw ni dawaaman indaka yu mel noonu yooyu sëñ bee ko moom am ci yoo xam ni jamono yi muy bind la ci jublu te loolu day am day am day am lu koy feeñal ci biir wax ji lu mel ne inna kitaabati inda al musbidi ilayya qad qaadat thawaab al ubbadi wala naabat kitaabati an silaaxi wal jawalaani li dawi silaaxi waxi loolu yoone ne kon jamono yi muy bind xam nga sëñ moom yi ak li muy wax ni ku mu ko tekkalut mënoo koo xam te li muy wax lépp da ko askan ci kitaabati wala xatti wala yi demee noonu te kitaabati li mu tekk ñaar la mooy jamono yi ngay bind wala wala bi nga bindee mbind mi ba noppi moo tax am na ci yoo xam ni jamono yi mu bind la jublu am na yoo xam ne mbind mi bind ba noppi xasida gi ci moom jëmm xasida gi ca la ne fi ne léeg-léeg nga gis mu wax ne zintu qasaida taduuru bayna al arshi wal kursi yi tamxul may na loolu xasida gee koy def nga xam tamxul may na zintu makatiba taduumu taduumu raasida kulla muaadin nga xam ne xasida gi mooy nekk di fuglu mbooleem ñi noonu yàlla loolu jëmm xasida gee ko def xasida googee nag ku ne xam na ne lépp loo gis ci kaw suuf rek am na jëm wax ji sax boo ko waxee ba noppi daal na am ruux gu ca tàbbi mu am jëm ilayhi yasaadul kalimu xam nga kalimu yasaad wa wajadu maa amilu xaadiran amal bi yaxduru kooku loolu jëmm la maanaam mbooleem jëf yëpp ay jëmm la yoo xam ni day am jëmmi leer joo xam ni maanaam xasida gi jëmmi leer la goo xam ni gii nga tiim nii googee lay lay tekk lay lay junj jëmm joojee nag moom la sëñ bi wax le rek am yu am may yoo xam ni ca la ne li mu wax ne rasida kulla muaadin moom loolu moom lu mel ne lii fi jaar corona bi na ma ci ñimatu waa ndax ginnaaw Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na jaamu bi yàlla la buy def liggéeyam waaye bi gaañu dajee bi gis nga jàng xasida yu bare bare xam nga <laughs> gis nga corona bi moom moom moom moom moom am na woyof gu ci am moom kon jëmm xasida yi day am yoo xam ne ci ne am yoo xam nag day sëñ bi da koy fàggul lu mel ne ila tawali fi yaqudullahu asrara la ilaha illallah yooyu xam nga ci xasida gi muy dem rek am yoo xam ne ci jëmmi sëñ bi ak ci bërëb bam am yoo xam ne ci bërëb bi la ko askan waaye am yoo xam nag da koy fàggul yii ma wax nag yii ma ñëkk a wax ni kii jàng xasida te sax ci te sellal ta yàlla rek a tax mën naa dem ba an tariqil wirasa suñ borom donnale ko ci dara ci barkeb sëriñ bi loolu mën nañ ci am waaye am na ci loo xam ne ku jàng xasida am nga ko moom am na xasida yoo xam ne sëriñ moom day ñaanal kii koy jàng li lu mel ne ma maraaxib fa la gën a bare wa hab li man yaqra'uhu aw yaktubu xayral muna waaye foofu li jëpp sëñ bi yaqra'u lay lay lay jàng lay jëfandikoo feeru mu daari mooy ku sax ci di ko jàng wa hab lahu jumlata ma taxtaaru lahu ladayka te la ko jiitu mooy wax fir li man yaqra'u dan nizaamu fi kulli zaman foofu ñaan na fa yu bëree bëri bu dee ci nuur daal ne wajal wajal xurufaha busharatin tunir qalba alladi biha yusalli yooyu nga xam ne kii jàng la ko faggul moom bu dee ca bidaayatul xidma waqbal bi jaayihi tihil bidaaya wabhab wahab li man yaqra'uhu lwilaaya yaqra'uhu nga xam ne ki sax ci di ko jàng yaqra'uhu lwilaaya nga xam ne kon xasida kon loolu lu ci ba ta bàyyi xel am na ci loo xam ne sëñ bee ko moom am ci loo xam ne ci xasida gi la ci loo xam nag yow miy jàng lañ ko fàggul loolu moom ku jàng rek am nga ko loolu nag lu ci mat a bàyyi xel la waaye may yooyu yëpp am na solo waaye kii jàng moom daa war a jàng rek te yàlla tax ak jëmmi sëñ bi waaw waru cee dàkk leneen ndegum sëñ bi daal rek lañ ci war a dàkk leneen luñ ci am murid du dàkk leneen idil muridu laa yuridu abadan gayra rida rahmaani ngërëmul yàlla rek lay dàkk ci lépp leneen lu la ci dab nag nga xam ne tawfeex ju la dab waaye wala bul wut jenn maqaama bul jéem a àgg fenn bul jéem a xam dara si yitte na doon per yóbbu Sëñ Tuubaa bu dëggal rek ëllëg nag lu la dikkal rek lu la sëñ bi baax rek nga xam ne lu tawfeex la maa ngi jégalu lu baax ci guddal gi wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Mbakke ndax yàlla ndax yàlla waa ngi jégalu <laughs> ngi jégalu waaw Mbakke Mbakke Mbakke sant waaw Mbakke Mbakke ana waa kër organisation tabarikala jërëjëf ci benn xasida yi nu ñu ko war a yëngoo ak nu muy amale njëriñ ba mu nga xam ne ñu ngi jóg waxtaan bi dara nañ ko yàlla te béppal ndax dëgg ci ñi parce que sax mën na ko gën a dëgëral maanaam ñu fàttali ko ñu nga xam ne ay fàttali ci ginnaaw ñu doole te yàlla bu ñu leen leen dara dafa xasida yàlla jublu na ci lépp loo li nga xam ne seen dëppoo ci jaay benn benn liggéey moom asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi yëkkati ay kàddu ci ndigalul Serigne Cheikh Abdoul Ahad moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma moom muy yëkkati ay kàddu ci ndigalul Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moom la sëriñ bi tànn jox ko lépp lu jëm ci wàllu organisation Magalu Touba daayira Muxaddamatul Xidma yor ci bànqaas bu rëy bu am solo di ci taxawee it taxawaay bu ràññiku Cheikh Mahamadul Bachir léegi bi sëriñ Cheikh Abdoul Ahad di ñëw mu woo sëriñ Galas sëñ Fàllu Mbàkke Touba wax ko na ko waxal sëriñ Cheikh Abdoul Ahad na ko na fa yëkkate ay gàtt ci sama tuut kon mi ngi nuyu sëriñ Xaafiya Buso ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi nuyoo boobu nag faw mu jàll ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ni ko sëriñ Cheikh Abdoul Ahad waxe ne ku ne xam na ne daayira Muxaddamatul Xidma àgg nañ sëriñ Mountakha foo xam ne ci xolam neewaa na ñu fa àgg moom ci boppam it mu waxal boppam ci bi mu toogagut ci jataay bii boole boppam ci daayira bi boole ko ci jëmmi boppam di teew waaye boole ci ay xalaatam boole ci it pas-pasam ba loolu képp ku bokk ci daayira muxadamatul xidma xam nga ne sëriñ Muntaxa boole na boppam ci yéen Cheikh Mahamadul Basir nag wax ne cant gi na ko tàmbalee ci sëriñ ahmadu mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi te li mu doon waxtaane doon loo xam ne mooy meññatum garabu tuuba gi mooy meññatum garabu tuuba te mooy njariñul njariñ li na ci jàng xasida te bu ko waxtaanee mel na ne bayit wu mu yëkkati mu murit bu ko dégg bu ne da nga yëg njariñ loo xam ne danga mën a waatal sa bopp ne lii moom xasida yi jariñ na ma ko kon thème bi ngeen tànn daa doon thème boo xam ne ku ca seetlu sa bopp gis ko kon ñu ngi ko ciy sant bu baax ci turu Serigne Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo yor lu jëm ci fànn boobu ci comité d'organisation bi di gën a jotal nag ak cantam ci daayira Muxaddamatul Xidma ndax nee na dafa mel ne comité d'organisation bi ñuy wut commission culturelle ak communication day fekk ne sëñ Touba dalaleen leen a waajaloon mbooloo moo xam ne buñ ci àggee danañ ko man ngeen di ci taxaw taxawaayu ràññ ko yoo xam ne bu dee màggal ak bu dul màggal lépp yéen koy taxawee ba noppi wuutu murit yépp ci loo xam ne ñëpp ci waroon di xëy ngeen jaayanteeg sëñ Tuubaa defal ko murid yi fardu kifaaya te loolu mooy di xëyal sëñ Tuubaa ci barabam bi di gontal sëriñ Tuubaa ci barabam bi loolu nag sëriñ Cheikh Abdoul nee na ci kàddug Cheikh Mouhamadul Bachir mu bàyyi ko ci kàddug sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak ñaan képp lañ ci man ak wax ji leen jaajëf waaye wóor na ko ne moom payu Serigne Touba moom dangeen ci jot ndax kenn du liggéeyal Serigne Touba di dellu loxoy kese rawatina nag koo xam ne am xëyam ci Serigne Touba lay doon am ngontam ci Serigne Touba lay doon te wóor na ko ne it nii ngeen di jege sëriñ Touba ni la Serigne Touba di defale seeni mbir ndax ab taal ku ko jege ku ne mu wàll la aw tàngaay te waxtu wu ne yéen a ngi gën di jege Serigne Touba di ko defal li mu ci barabam bii. di ko fi bañal it loo xamante ni bu fi nekkoon ku ko fi def mu génne la kon nag sëriñ Afia sëriñ Cheikh Abdou Lahad nee na amaat na solo gën naa amaat solo mi ngi ñaan nag ci darajee ki woote bis bi ak darajee bis bi kenn koo xam ne teew nga ci jotaay bi ak ku koy seetaan ci àdduna bi foo mën a ne soxla yoo mën a am rek yàlla la ci sëriñ bu wuutu defal la ko nu kawe sa njort Serigne Cheikh Bachir wax na ne li mu diis waaye amul benn barab bu mu dem boo xam ne gën na koo ñor barab bii amul jataay bu mu dem it boo xam ne gën na koo ñor seen jataay bii kon nag mi ngi ciy sant bu baax di ci gërëm diñaan yàlla yàlla nañ ko defaat at yu baree baree bari te luñ ci weesu yàlla na ko sëñ Tuubaa gërëm lu dëng ci kàddu yi ñoo ngi koy jéggul ñun la waaye kiñ ko yónni mat na ki ku ko yónni mat na ñim ko yónni yëpp mat nañ lu ci manqué rek ki ne ci diggante bi la maa ngi koy jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yépp di jiital ci nuyoo bi mbokk yi fi teew waaye nuyoo bi ak sargal gi ak tatagal gi ñu ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu yàggal ko fi te wéral ko yëkkati ay kàddu ci turu sëriñ Afia Bousso imaam mi nga xam ne mooy jiitul daayira Muxaddamatul Xidma ngir kàddu yi cant ak soññ suñu bopp ak it ñaax suñu bopp euh, sëriñ nee na kàddu yi cant yi ak ñaanal yépp ñu ngi koy mi ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa moom mi nga xam ne mooy jëwriñ nii borom liggéey bi di sunu yaakaar tey ak ëllëg Sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu kenn ku nekk xam na ne Cheikh Mahamadul Muntaxa ku mu nekk ci sa kanam am nga sas wu rëy rëy waaye yéen nee na ñun ñi nga xam ne ñooy daayira Muxaddamatul Xidma am nañ sas wu rëy ci yaakaar ju rëy ji nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha am na ko ci Moukhaddamatoul Khidma kon sas woowu nañ ko gën a bàyyi xel te fas yéene gën a nàmm aleer yi ngir ko fas ko yéene bay kon nee na sëriñ bi nee na mi ngi koy nuyu di ko sant di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko gannaaw loolu it ñi ngi nuyu Cheikh Mouhamadoul Basir moo Cheikh Abdoul Khadir moom mi nga xam ne moo jiitee comité d'organisation Magal Touba euh, ñu xam ne waxtaan wii nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi koy amal te tàmbali ko depuis le 9 safar tey jii di waxtaan wi nga xam ne dañ koy gën a yaatal ngir ànd ko ak comité bi te loolu muy at yu mu ci at yi ci ginnaaw yépp loolu nag ki koy jëmmal nga xam ne moo fi taxawal comité bi ànd ko ak ñun ci maanaa yépp mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma mi nga xam ne moo jiite commission communication et culture teew nii teewal fi Cheikh Mouhamadul Basir teewal fi mboolem comité d'organisation bi te Muxaddamatul Xidma bokk ci biir comité d'organisation boobu sëriñ bi kon ñu ngi lay nuyu di la yóbbanti nuyoo ci Cheikh Modou Bassir di la tatagal waaye di nuyu tamit sunu sëriñ bi nga xam ne kenn ku nekk xam na ne rawatina ñun ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàll gii di wàllu commission culturelle bi di sëriñ Mouhamadul Xabbaan moom Cheikh Modou Mourtada ci di ku xam-xam ñor di ku xam-xam yitteel rawatina jataay yi nga xam ne Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi koy amal moo xam koor gi moo xam waajtaayu màggal saa su nekk muy teew di ko ànd ak ñun kon ñu ngi koy sant ci loolu di ko gërëm bu baax a baax sëriñ bi nee na mi ngi sant mboolem membre yi daayira Muxaddamatul Xidma ñi nga xam ne ñooy teew ci jumaa ji di liggéey si ak ñi nga xam ne teewuñu dañuy participer ñu ngi ciy jiital ñuy teew ci jumaa ji di liggéey si waxtu wu nekk nga xam ne fajar ba guddi ñi ngi fi takk seen laxasaay di liggéeyal sëriñ bi ànd ngir liggéeyal sëriñ Tuubaa ci jumaa ji loolu di tawfeex ju rëy rëy képp koo xam ne sunu borom xéewale na la nga bokk ci ñiy dund ci jaww ji di fi ñëw di liggéeyal sëriñ bi jege ko nii am nga tawfeex ju rëy waaye am nga sas ci ñu gën a bàyyi xel sunu bopp gën a bàyyi xel sunu warma suñu digg ak sëriñ bi gën a teewlu ci sunu xol gën a fas gën a muslu ci saytaane ba ñu bañ a gis ci sunu bopp ci lenn te bañ a miin barab bi te bañ a yab barab bi saa su nekk muy mel ne ay gan lañ bi nee na mi ngi mi ngi dénk mbooloo mi loolu mi ngi sant mbooloo mi nga xam ne dañoo bokk ci daayira bi ñu leen di tuddee ay ay musaayimuun mooy ñi nga xam ne dañuy joxe seen addiya nga xam ne mooy doxal liggéey bi te liggéey bi aju ci banqaasi muxaddamatul xidma di liggéey bu yaatu moo xam jumaa ji la moo xam armeel yi moo xam bàq ya ak li ñuy def lépp ci wàllu diine ngir liggéeyal jullit yi ci lu leen jariñ ñooña ñoo ŋànk liggéey boobu ngir mu mën a dox ndax mbir mu nekk su amul ay jumtuwaay yi koy doxal te jumtuwaay yi li ci ëpp solo ci liy doxal àddina fim ne mooy mooy xaalis kon bokk yi nga xam ne ñooy joxe seeni àddina ngir loolu dox suñu ñaafee nee na ñu ngi leen di sant bu baax di ci jiital kilifa yi diine yi kilifa yi njabootu xaadimu rasul ak seex si ak waa dëkk bi ak opérateur économique yi di commerçant yi ak mboolem liggéeykat yi ak ouvrier yi waaye di ci teg waa bitim réew ñooñu it ñu ngi ciy beral loxo waa fondation masar muxaddamatul xidma bi nekk Amérique te sëriñ Seex Jonn jiite ko ak sëriñ Amsatu Laam ñooñu dañuy ay jàmbaar lool ci liggéey bi téye ci lafu rëy rëy rëy téyel ko daayira Muxaddamatul Xidma moo xam waajtaayu màggal moo xam koor saa su nekk balaa première safar ñu indi seen addiyee joo xam ne mooy ñëw ci entretien bi loolu kon ñu ngi leen ñu ngi leen di beralu cant di leen soññ di soññ mboolem taalibe yi nekk Amérique ngir ñu xam fondation boobu te tàbbi ci jaare ko ci jumtuwaay yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy fésal ngir bokk ci liggéey bi li ci teg waa Europe Serigne Assane Diop ak mboolem ñi mi coordonné ci diaspora bi ak waa Afrique ma euh, Mafari Ndiaye ak ñi mi coordonné ci Afrique gépp ak mboolem ñi nga xam ne rek ay yu bu Moukhaddamatoul ma lañ ak fu ñu mën a nekk. sëriñ bi nee na mi ngi sant mboolem soppe yi nga xam ne xëy na duñ ay membre waaye fuñ toll ñu ngi fonk liggéey bi di ci def seen addiya. saa su nekk su amee occasion bu mel nii dana leen sant euh, gërëm leen gannaaw loolu yi mi ngi fàttaliku bu baax a baax a baax sumu kilifa yi gii nga xam ne bokkoon na ci ñi nga xam ne daayira Muxaddamatul duñ ko fàtte mukk ak bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci ak suufam te mu bëgg leen lim léegi sëriñ bi nee na bëgg nañu ñu bàyyi leen xel ci ñaar ki ci jiitu nag mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha moom sëriñ ma Massamba kenn ku nekk xam digganteem ak jumaa ji xamit digganteem ak daayira muqaddimatul xidma sëriñ bi nee na ñu ngi teewlu ci barab bi di ko bàyyi xel di ko ñaanal suñu borom yokk yërmandeem teew na fi mbooloo mu bëri teewal fi sëriñ ahmadou mbakke mi nga xam ne mooy ab xalifaam eh, ki ko jiite mooy sëriñ xaasim mbakke ak mboolem ak njabootam ñi ngi teew ci jataay bi ak délégation yi nga xam ne sëriñ imam lim na leen léegi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci teewaay bi di leen gërëm di leen gërëm ci ànd bu rafet bi ñu ànd ak Moukhaddamatoul Khidma rawatina borom xam-xam yi ñu àndal di sant sëriñ Ahmadou Mbacke mii nga xam ne moo doon def waxtaan wi léegi di ko gërëm di ko ñaanal. gannaaw loolu nag liggéey bi sëriñ bi nee na ñun soldaari sëriñ Touba lañ liggéey baa ngi ci suñ kanam yaakaar ju réy ci Cheikh Mouhamadou Mountakha amoon daaw ba bi mu jàllee mu bég mbégam moomu ñaanal ñu. nañ xam ne ju tamit la amaat ci ñun ci màggal bi première étape bi jàll na muy entretien jumaa ji setal ko ci lépp loo xam ne mooy luñ ci war defar ñu defar ko lu ci yàq ñu defar ko euh, jindi li nga xam ne mooy niru ak taq te taq amu fi léegi nag li ci des mooy sóobu ci màggal gi sóobu ci màggal gi nag daayira Moukhaddamatoul Khidma bu koy def da koy ànd ak mboolem cellule yi mu lëkkalool moo xam Muxaddamatul Xidma Louga moo xam Touba Ngoy moo xam di 18 safar ak mboolem fu waay mën a nekk rek te doon ab kuréel boo xam ne day ñëw tàbbi ci biir liggéey bi nga day doon daanaka lu mat euh, lu jege junni nit yoo xam ne dañuy liggéey ci biir màggal bi ngir di wéyal ndigal yi sëriñ bi digle ci jumaa ji di tere yi ñu ciy tere ak saytu gan ñi ba kenn ku nekk mën a ñëw def sa jaamu mën a dem kon ñooñu ñu leen ci soññ bu baax ngir ñu waajal ko te fas ko yéene defe nu raw euh, nuñ ko defee woon daaw te waajal gàmm gi ndax bu jógee ci jataay bi yaakaar naa ne jataayu gàmm gi la ñu amaat su màggal gi jàllee ñu xam ne it gàmm gi ni ko Moukhaddamatoul ma daal dundalee noonu la koy dundalee ni ko raw insha allahu rabbi kon daal loolu mooy kàddu yi nga xam ne sëriñ bi ne woon na ñu tënk ko euh, jot li ko kilifa yi fi teew euh, rawatina Euh, waa comité d'organisation màggal bi nga xam ne ñooy ànd jataay bi sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma teewal leen fii ak mbooloo mi mu àndal di sant it sëriñ Fallou Galass Sylla mi doon wax ci turu Cheikh Modou Bassir ak turu Cheikh Abdoul Ahad bi ci kàddu yi rafet yi di leen sant di leen gërëm kullu aamin wa antum bi xayri assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu way xarit mag boroom